Ça gars gagne na ngeen def j'espère que vous allez bien amutin ah, Doudou Fall maa ngi si jàmm Abdou Fall sama c'était juste pour pour revenir ak décision bi nga xamante ne moo am te am à chaque fois donc euh, je suis une une artiste très engagée ñëpp xam ko tu vois le social tu vois le sensibilisation tu vois le mieux, mais dafa am lenn loo xamante je l'ai remarqué li me remarqué moi, en tant que minorité bi Sénégal je pense que euh, néewal doole bi dafa pas a tout, parce que je ne peux pas concevoir à chaque fois que suñu fête approche suis on parle des cas qui augmentent on parle des mesures strictes on hmm? on parle des euh, je ne sais quoi donc je vous prends un témoin comme euh, le hasard n'existe pas l'humour donne hasard et je me demande bonne politique la ñu à chaque fois que vous avez wax Pâques chaque fois vous wax pèlerinage à chaque fois bu fête bi nga que nous a suñu a amour à chaque fois vous approchez, nous il faut que nous une ñu ay ay mesures barrières coronavirus lu am je n'en disconviens pas coronavirus feebar la day rey je n'en disconviens pas te ñëpp xam nañ ne corona feebar la boo xamante ne transmission bi dafa gaaw contact direct contact communautaire man ay contact yoo xamante ne sax yow mën nga toog sa kër sax kenn xamul fu ñu lay indi corona loolu dëgg la mais ñun nag amuñu lu dul suñu ngëm-ngëm amuñu lu dul suñu foi amuñu aussi lu dul kii croix bi ma yor moom rek la ñu gëm gis murit yi ma dama leen fan xam nga tax ma fan leen dañuy naan suyo boobu leen corona di rey na leen reyee Tuubaa ñi boole seen full ak seen fayda def seen mobilisation dem seen Tuubaa def seen màggal kenn ngaangu kenn waxul catholique dañoo yaru dëgg la on est bien éduqué dëgg la dañoo discipliné dëgg la waaye tamit nit bu la rusee jox la cër danga leen di jox cër tëj nañ suñu église yi kenn waxul au contraire sax abbay ak monseigneur yi ak euh, ak évêque yi ñoo ñuy doom toog di ñu sensibiliser di ñu delloo suñu foi dëgg la la religion elle est personnelle la foi elle est personnelle mosuma bëgg a wax ci ay affaire de religion Sénégal mais trop c'est trop la foi elle est personnelle la religion aussi mais dañoo am li ñuy wooye communion te ñu dañoo soxla communion mooy di daje ci église yi di daje ci bërëb yi nga xamante ne fa la ñu mën a ñaanee yàlla en communion yàlla nangu suñuy ñaan te ku nekk xol la yàlla dafay dëgg la mais on a besoin d'être ensemble mënoo la ñu xeeñ suñu veille pascal xeñ ñu suñu pèlerinage Popenguine nawel ñëwati ni waxatu du n'importe quoi ani suñu njiit où sont les leaders ani jeune engagé, catholique. ah foog naa ne nit sa gëm-gëm rek nga am te corona ku deewul ren di nga dee déwén ku deewul ci corona di nga dee ci leneen nii lañ def ak jot ñii dem bay contrôler ndax war nañu ngalax ne bu ñu ngalax bu ñu ngalaxee yóbbu ko ci kër yi bu ñu feebaree ñu ñoo indi loolu ba da ngay gis ndeysaan waa Karang suñu kër musulman yi ñoo dem ñëw ba suñu kër ne ñu bëgg nañu nañu dee may lañu si ngalax gi ñu lekk ñu ne patt waxuñu bool lu ñu neex ak lu ñu naka gi ne patt pèlerinage foofu ngeen jot ñu toog demuñu nawel yi ñu nii di waaju jub si waat amoo leen sax loo leen di rus man je sais pas fa la décision yi du jóge mais il faut ngeen am loo leen di wus nag parfois ngeen gëm mu bàyyi seen loxo man gëmuma kenn ah. murit yi laa gëm la ñoom sen ful ak seen fayda man dem naa Touba moment corona bu muy jax dem Touba kenn solul masque kenn solul masque foi dafa am solo feebar corona man je n'en disconviens pas lu am la mais foi dafa am solo te ñun suñu foi rek lañu am dama bëgg nag ngeen rusuñu mënuma chrétienne nekk jeune chanteuse kenn yónniwu ma nag man waxal parce que trop c'est trop c'est anormal li nga ne ci mi mesure koy jël dañuy ñu bokk même mesure même pied mais comme nous, est-ce que xam ngeen na maa seetaan fan yële kenn di wax di euh, ma 24 décembre 24 décembre ak 31 décembre mooy fête yu parce que si la di ëmbee di kii mais moom xalaatul woon sax 24 décembre c'est la naissance du Christ c'est quelque chose significatif si ñun bi muy wax de voix la nee nitu muy ne 24 décembre ci la yu bon yi di xewé li wax avant de parler il faut réfléchir il faut tourner la langue 50 000 fois avant de parler on vous respecte respectez nous man bañ na ba awuma sax bëriwuma bëriwuma sax ay xaritu chrétien sama xarit yépp ay musulman lañ dem naa Touba dem naa Tiwaawan di waajal Kaolack parce que dama gëm ne ñu ñëpp ci yàlla la ñuy dem mais nag amna na lo loo bu amé même bo bokul ci diini yo sax na ngeen tok waxtaan si ne ah décembre aujourd'hui on est le 20 nañu muñ touti xol mesure yi ni muy démé muñ touti rek ba seen fête passé sax janvier sax ñu doog jël mesure parce que man gis bo fi cas bu extraordinaire bo xamante jarna jar ñuy ñëwaat di revenir port de masque euh, euh, euh, pas de rassemblement te communion yaa ngi dañ ko ajoon ñu wax ko def lu bari ñu koy ñu son excellence avec tout le respect que je vous dois tout le respect que je vous dois il faut revoir vos mesures barrières quel moment l'appliquer et comment l'appliquer et pourquoi aussi l'appliquer mais nous ne rek ne on est les plus on est les plus éduqués merci dañ ben, ko hier on est catholique la ku bëgg jang école bu baax ne êtes privé catholique dëgg la vous tamit nit boulot. la koy ñaan bàyyi ko ci la naissance de Jésus-Christ bàyyi ñu feete ko ci jàmm ak salaam ndax benn yàlla bi la benn yàlla bi dongu la ku aye ñaan sa yàlla ñun bu ñu ayee ngal la bàyyi ñu ñu ñaan suñu yàlla parce que yenn nii man xoxotal laa koy tuddee xoxotal man laay tuddee yenn nii xoxotal nit ki instant soo waxee fitu ñëpp tëb Nous ñuy def ak nawet bi ñuy def ak nawet bi la fête. la fête, c'est rek la mën a doon mais nag ak dignité avec décence ak xel bu dal métti trop parce que tey bu ñu corona bi sax Sénégal mais du exister ci monde parce que li mu dafa bëri mais quand même nit bu la rusee da nga koy tubaab yi nga xamante ne sax fa la kaay ëppee ñi ngi préparé nawet di ko feete en bon et due forme